ngeen jot suñu vidéo nag foo leen ko ngir mën ko sëñ ko lu jox kàddu gi waaye ba tey rek di siyaare le général Cheikh Ahmadou Mbacké Cheikh Ahmadou Kara Mbacké noo rëy ni moom it tabarkàlla gis ngeen fan yi ci appel yi li mu def sëñ Modou Kara. Mhm. Cheikh appel yi li sëñ Modou Kara def. mu mel ni El Hadj Serigne Galas Mané dafay teew di xaritu Serigne Bas di mbokkam Serigne Cheikhouna Ridis dafay teew Serigne Mamor Mbacké euh, transitaire Serigne Fallou Mbacké transitaire ñoom ñépp dañ fee teew waaye njabootuk Ahmed Amar di njabootuk soxna sopp baabu Marème Sadi naari Kajoor yi ku ne xam ne diggante njabootuk soxna sopp baabu ak Serigne Basiru moom Serigne Khadim Awa Ba waaye nag bàjjanu boppam bi di soxna may moom Serigne Modou Fati xëri nga xam ni waxtu wu nekk euh, euh, mosuñoo réeroo ci dara ànd naag njabootam gépp maam bi Binta Sàll ànd naag soxna Joob soxna May Moroon ak ñu bari délégation une forte délégation ñëw kon ñu déglu sëriñ Koso taaw sëriñ taxa ndax ñi ñëw ci bis bi ñëpp incha allah ku ci nekk sëñ Bas dafa bëgg njox ko wàcc waayam euh, ñu rafetlu bu baax waaye teewaaye alaaji Mansour Mbay as Mansour dafay kenn ci kër sëriñ Touba di kenn ci kër Sidaaji Malick di wax katu lu baax diggante Touba ak Tiwaawan yor pusaam ak wëñ ji ñëw waaye nag di kenn ci sëriñ xaadim sëriñ Basiiru Mbakkeem sëriñ xaadim aw ba ndax diggante far ba Ngom ak digganteem ak sëriñ Basiiru moom sëriñ xaadim aw ba ba ci ajaa Mbay doomam moo tax mu ñëw ànd ak ak njabootam Alaaji Mansour Mbay ñëw Racine si teewaayam rafet na lool Racine dafa baax dis gor jàpp Cheikh Madul Bachir waaye Racine dafa jàppalu lu bokk Serigne Touba moo tax rafetlu nañu bu baax gërëm bokkar ci BACS moom itam taxawaayam rafet na lool nu déglu nag ñépp dal ndax kàddu gi jib kàddu Cheikh Mahamadul Muntaxa la ñu xam ni Cheikh Mahamadul Bachir moom Serigne Abdoul Khadir yabar si na Fallou Bousso ak Ahmad Ndiaye